di leen ci bis bi ak ci barab bi ñu fas yéene ñëwaat rekk ci ay baati fàttalante ni ko barab bi baaxoo ci waxtu wi tey ji ñu bëgga a fàttalante loo xam ne xëy na fi jamono tollu bari yoo xam ne dana rot ñu di ko dégg di ko dund loo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon euh, lu mel ne baat yi nga xam ne ci wàllu googu la jëm léeg-léeg ñu dégg lu mel ne audition ñu ne dañuy déglu nit ki léeg-léeg ñu dégg ouverture d'information judiciaire léeg-léeg ñu dégg lu mel ne parquet wala retour de parquet léeg-léeg ñu dégg inculpation wala mandat de dépôt léeg-léeg ñu dégg ay xeeti cour de justice ak ña ca aju lu mel ne procureur wala juge wala avocat wala yu ni demee xëy na loolu nekkul dëgg-dëgg loo xam ne suñu xam-xam màcc na ca waaye wala bokk mën nañ caa wax waaye nag mën nañoo yóbbu nag ñu xalaat nag ëttub àttekaay boo xam ne kenn ku ne ci ñun dana ci jaari mën na am yi ñuy ñu doon wax léegi yu àddina yi mën na am ñépp duñ ca jaari am na ñoo xam ne dinañ dund ba seen dund jeex duñu yittewoo sax dëgg ca seen tànk wala am lente ak ñoom waaye bii nag day boo xam ne képp ko yàlla sàkk wàccee la ci kaw suuf faw yitteel na la te faw danga ca jaari boobu mooy maxkamatul adl al ilahiya muy cour de justice divine nga xam ne ëttub àttekaayub suñu boroom la mu war cee dajale nit ñi ñi njëkk ak ñi mujj dogal ci ab àtteem subhaanahu wa muy doon ci bis boo xam ne benn bis mëstamel ne moom lu ko jiitu te ginnaaw ginnaawam bis du melati mukk ne moom di bis boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala daña dana ci dajale ñi jiituwoon ak ñi mujj mbokk di bis boo xam ne mën na am bu doon am shiar wala slogan dana ca bokk ne kenn du fa tooñ foofa laa zulmal yawm bis la boo xam ne tooñ amu fa wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla du tooñ mukk ab jaamam mbokk di bis boo xam ne nag bis booba day kafay atte kafay juge di alxakamul adl mooy yàlla suñ boroom subhanahu wa kon bis boobu lañ war a waxtaane yàlla moo fay atte moo wax ne allahu yaxkumu baynakum yowma alqiyaamati fii ma kuntum fiihi taxtalifuun yàlla mooy atte seen diggante yàlla mooy juge bi tranché wuute yi ngeen amoon maa ngi koy def ëllëg yowma alqiyaam kon moom mooy atte foofu mbokk yi di bis boo xam ne bu mat a bàyyi xel la di bis boo xam ne moom lañ bëgg a waxtaane ak lenn ci atte yin ba fa yàlla di atte waaye itam yenn jagoo yoo xam ne bis boobu wala tirbinaal boobu wala cour de justice boobu yenn ci ay màndarga yoo xam ne jagoo na ko kon ëttub attekaay la boo xam ne wuute naag yi ñu xam fii bu mu ci mën a doon rek wuute naag moom moo xam première instance la moo xam ba ci cour de cassation yi wala cour d'appel yi wala tribunaux internationaux yi wala cour de la haie bu mu ci doon rek wuute na ak bis bi di bis boo xam ne lépp dana leer lépp suñ borom dana ko leeral yawma yu'raduuna laa taxfa minkum xaafiya suñ borom dana leeral yépp yawma tubula sarair di bis boo xam ne suñu borom dana wuññi li nëbbu woon dana feeñal ay secret dana leeral ay mbóot ni ñu ko waxee di boo xam ne yàlla da ciy dajale mboolem jaamam yi ñi jiitu ak ñi mujj qul inna al awwalina wal axirin la majmuuna ila miqaati yawmin maalum kon di boo xam ne yàlla dina dina dajale ñooñu ñëpp rabbana innaka jaamicu nnaasi li yowmin laa rayba fiih inna allaha laa yuxlifu lmiicaad kon yàlla dana dajale ñépp ci bis boobu nga xam ne kenn du ko wuute di bis boo xam ne mbokk yi ni ñu ko waxee lu mat a bàyyi xel la ndax yàlla bari na lu mu melal bis booba ci alquran wax ne nañ ko bàyyi xel nañu ko teet nañu wattandiku yàlla te di ci seet bis boobu yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum inna zalzalata saata ati inna zalzalati saati la sheyun azim nee na bi yëngu bis boobu lu taratar la di bis boo xam ne métit ak tiis fuñ ko takk da koy romb yowma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaat bis boo xam ne ku doon nàmpal sax doo talati li nga daan nàmpal wa tadaau kullu zaati xamlin xamlaha soxna su àndoon ak dara sax dana ko wàcc doonte jotul wa tarannaasa sukaara di bis boo xam ne dinga gis nit ñi metit jàpp leen ak tiis ñu mel ne ñu tàqalikook seen sago ñu mel ne ñu màndi fekk na mbugalum suñ borom rekk moo tar bis boobu kon mooy ëttub àttekaay boobu bis boobu la suñ borom di taxawal cour de justice am boobu nga xam ne moo cay àtte ki ci àtte mooy rabbul izza mooy borom asamaan yeeg suuf mooy ki am sañ-sañ ci jaam yi ndax huwa allazi axrajahum min al adam moo leen sàkk moo leen amal kon borom boobu mooy mooy juge bay ate léeg-léeg nga nekk salle d'audience bu juge bi dee ñëw ñu ne nañ jóg ku fa nekk dangay ngay jóg ak daraja joo mën a am ba mu yegsi ba toog nit ñi doog a toog mbokk yi ci tribunal yi ñu xam ci àddina fii nga xam ne kenn mayuñu kenn ak lu sa daraja mën a toll nga sol fa mbaxane bu juge bi ñëwee nga xam ne sax sa téléphone bu sonee walla ngay wax am na sañ-sañu xupp la ci loola walla mu jël dogal buy buy dal ci sa kaw mbokk yi loolu nag moo xam muy juge ba walla ñi toog ci audience bi kenn ku ne war na laa fàttali bis ba yàlla di wax ne li manil mulkul yow kan moom moom nguurug tey nga xam ne kenn du ko sañ na sax yow la moom mooy waxal boppam lillahi lwaxidi alqahaar kon kenn ku ne war nga bàyyi xel loolu kii atte ki ñuy atte yàlla dana leen boole ñoom ñëpp attewaat leen ci bis boo xam ne moom moo ca am dogal moo ca am sañ-sañ yàlla moomu nga xam ne yaalamu xaainata al ayun wa ma tuxfi sudur mbokk yi kii atte day dara ump ko xam na lépp moo gën a xam lépp sax jëf ju ne moo ko gën a xam ku ko jëf kon moo war a àtte foofa inna allaha qad xakama bayna al ibad bis booba la xewee mbokk yi bis boobu melokaanu àtteb suñu boroom bu ñuy wax justice mooy al adala mën na am baat bi dana méngoog li jub li jaar ci yoon li juste li nekk ci digg bi te jaar fa mu war a jaar yàlla subhaanahu wa taala al adlul mutlaq lay jëfandikoo ci bis boobu moo tax mu wax de fa man yaamal misqaala darratin xayran yara wa man yaamal misqaala darratin charran yara bis la boo xam ne lu nit ki jëf lu mu tuuti tuuti ci lu baax dana ko gis yàlla dana ko teewal dana ko ko fay safaan wa itam lu nit jëf lu mu tuuti tuuti loo ko xeeb-xeeb yàlla dana ca dawal mbaanu teemu da ko gis ndax li ñu waxoon léegi bis la boo xam ne laa zulmal yawm inna allaha sari'ul xisaab bis boobu tooñ amu ci te atteb yàlla mën naa gaaw ndax mbokk yi ku ci am compte bancaire tey bëgg a xam transaction ya nga ya nga ca def lu mu bari bari boo taxawee ci banque bi joxe sa compte bancaire bu ko tàppee rek bu bësee imprimer ko ate bu gaaw lay doon lay lay doon ndax lépp dafay leer bis bu ne la nga dugaloon bis ba nga ko dugal agence ba nga ko dugal waxtu wa nga ko dugal loo retiré bis ba nga ko retiré ban agence nga ko retiré wala ban gab nga ko retiré ak ban waxtu la ak montant ba nu mu toll kon atteb suñu boroom inna allaha sari'ul xisaab mbokk yi tribunal bu mat a bàyyi xel mi ngi noonu tribunal boo xam ne bu bari màndarga la màndarga yoo xam ne wutee na koog nag tirbinaal yi nga xam ne ab jaam bu ami sañ-sañ ay moroomi jaamam jox koy sañ-sañ mooy atte moroomu jaamam tribunal boobu ñëppi jaam lañuy doon yàlla fay atte nga xam ne ni ñu ko waxee bu mot a bàyyi xel la kon am na ay màndarga ay jagle xasaais yoo xam ne tribunal boobu am na ko mbokk yi bokk na ci ne tribunal boobu day ak mbokkoo amu fa solidarité de corps amu fa kii ñoo bokk ñoo bokk xeet ñoo bokk dëkk ñoo bokk parti amul foofa fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum mbokk yi bis bu suñu boroom wa bufte bi wala bis bu walloo bufti bi foofa askanoonte sax du fa am kii sama doom la kii sama sët la sax dee su ko fa tal kii ñoo bokk dëkk kii ñoo bokk parti wala ñoo bokk xeet deesu ko fa tal wala aloon kenn du laaj sa mbokk sama doom ji gisuma ko sama sama mag ji gisuma ko naa ko laaj naa jéem a xam ci lan la nekk mbokk yi kenn ku ne la nga nekk dana la doy sëkk wëlis ngay xool leneen kon loolu bokk na ci màndarga yooyu xëy suñ tribunal yi day am partie civile am nangam pool d'avocat boo xam ne ñii lañ fi teewal booba nag amul loolu mooy kenn ku ne sa sa sa jubbu bopp day na la sëkk kon ñu bàyyi ko xel lépp lu ñuy def rekk war nañ cee bàyyi xel ne danañ teew ci tribunal boobu juge bu mag bi juge ñu muy suñ boroom subhanahu wa taala mbokk bokk na ci jagle yi nga xam ne ëttu attekaay boobu bu mag boobu léegi ñu ne haute cour de justice boobu nag mooy bu mag dëgg-dëgg mooy bu kawe bi bokk na ci jagle yi nga xam ne am na ko mooy foofa tribunal booba kenn du fa ger kenn du fa ger kenn ngir mën a ngir saw lay jub wala ngir mën na am dëgg ci keneen kenn du fa ger kenn ndax kenn fay atte te ka fay atte day yaa ayuha nnaas antumul fuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alxamid mboolem ku fa teew rek ku ñàkk nga wala ku yittewoo sax ndimbalul suñu boroom nga te yàlla mooy koo xam ne yittewoo fu yittewoowu fa dara ci kenn kon ana kan nga fay ger xëy na tribunal àddina yi de mën ngaa def ay pexe ah léeg-léeg ñu ne àttekat boola nangam xëy na am na fuñ jaar ak moom waaye tribunal suñ borom de kenn mënu faa ger kenn te du fa jëriñ dara jagle yi nga xam ne tribunal boobu am na ko ëttub àttekaay yi suñu borom bi am na ko te xëy na mën na am tribunalu àddina yii ñu am yii ñu xam mën na am yépp amu ko muy tribunal boobu amul pression amul benn pression bu ñuy teg ci kaw juge wala procureur amul benn menace boo xam ne mën nga ko exercer fenn ci tribunal booba ci tribunalu suñu borom boobu ndax in kul man fi samawati wal ard illa aati rrahmana abda kon kenn ku ne ku fa teew rek ñi ci asamaan ak ñi ci suuf si da nga dikk ci kanamu suñ borom nekk ab jaam ab jaam mbokk yi nan nan lay mën a defee pression ci ki ko bind ki ko moom kon mbokk yi képp ku mën a def pression ci nit fii wala nga mën a subir pression fii war ngaa xam ne mënaas wala pression ba ka muy jóge ak ka muy jëm dinañ bokk ci péncub yàlla mu àtte leen te foofa kenn du fa menacé kenn amul benn pression bu fa nit mën a yëkkati jëmee ko ci keneen mbokk yi kon nañ ko bàyyi xel nañ bàyyi xel tribunal boobu ma wax nga xam ne kenn ku ne danga ca teew kenn du ko wuute nañu ko bàyyi xel te xam ne foofu dëgg rekk a fay dox xëy na yi àddina yi mën ngaa tooñ defi pexe ba génn ci mën ngaa ñàkk dëgg defe pexe bañ bañ jox la dëgg waaye foofa moom dëgg rek mbokk yi moo fay dox bis buñ ko jàppee ne lu sori la nag bis bu ñu ko jàppee ne li ñuy dund tey dafa nekk nii tribunal booba nekk nële le rek ñu ngi ci njuumte mbokk yi tribunal boobu lépp lu ñu jëf walla ñu wax ko mu rëy wala mu tuuti dinañ taxaw ci kanamu tribunal boobu léeg-léeg dañuy wax box d'accusé ku ñu tuumaal day am foo nekk foofu nag ñëpp ñooy bokk fu ñu nekk ku dul yàlla suñ borom subhanahu wa kon li ñuy jëf tey bu ñu ko teqalee jàpp ne amul relation tribunal booba rek ñi ngi ci njuumte mbokk yi bokk na ci yi tribunal boobu jagoo xasaais yi mu am xëy na wuute ko ak tribunal yi ñu xam ci àddina bokk na ci ne foofa de yàlla bu àttee ab àtteem dara mënu ci dara ab àtteem dara du ko dindi àtteem suñu boroom amul def appel léegi léeg fii ci àddina xëy na mën mën jugement mën na génn ah nga ne àndoo ci nga def appel yaag say avocat ñu juge waat la léegi léeg xëy na mën nga dem cour d'appel wala nga dem cour de cassation xëy na àtte bi ñu waddal ko bu la doyul sax mën nga dem ci yeneen yeneen xeeti tribunal mel ni tribunal CEDEAO bu dee suñu réew yii la wala yeneen waaye tribunalu suñu borom moom kenn ka fay àtte bu àttee dara du ko dindi wallahu yaxkumu laa muaqiba li mi yàlla mooy àtte kenn du dindi am àtteem dara du ko dindi dara du ko randal